waaye du tax nag ma contre daar yi koy def. Mhm. Mhm. parce que bu ñu amoon mooy yi ma am def li ma def. am di aaroon. wallaay dëgg gu dëgg ñu amoon moyens yi ma am. def li ma amuñu moyens. Mhm. moo tax ko def. bu seet daara ju am moyen bàyyi Iran fële nga seet daara ju amoon moyen. nga jàppale ko. parce que ñoo war a jiitu. ki nga xam ne lépp lu yàlla am moo koy taxawu. lu mu mën a doon moom nga koy dénk. booy mm. doom. Mm-hmm. bu xale juddoo tokkantalam mm-hmm. su ñu ko waree feral mm-hmm. su demee bay jàng kiis ka muy naan mm-hmm. su waree takk jabar ñoo ni koy takkalee su ci doom ni koy tuddee su demee ba faatu ni ñu koy sàngee buñ paree ni koy sange buñ paree ni koy ñaanalee ba dem yóbbu ko ni koy dugalee ci bàmmeel dellu ci kër ga defal ko fidaaw ñii ñoo ŋànk di adduna bi ustaas yéen a ko yor nangu leen ko mm-hmm. ci ngeen géré ko mm-hmm. ci bu leen ñàkk fayda mm-hmm. bu leen benn borom dërëm not fu laal leen seen bopp te faydaal ko ku mu man a doon oustaz dama lay laaj da nga toog ak benn borom dërëm ñaa nga jóg ne ko ñaanal ma déedéet danaa la oustaz ñaanal bala ngaa def ministre beeg député beeg ba ci président bu ngeen toogee boo jóg mu ne la ñaanal doo ko ne ñaanal ma mukk mm-hmm. ku toog ak président mm. wala ministre wala député mm. pare ne ko ñaanal ma mm. enveloppe baa duun rek wala yeeweegu la nga bëgg mu yeewi la <laughs> man maa la ko wax mm-hmm. enveloppe boo miinul la la jox mm-hmm. nga jànne xe ba ñaanloo ko wala boog ngeen waxtaan wa jeex ngay tàggu gi soo mu jox la dara nga wëlbati ko naa fàccoo naa monsieur président defal ñaan fekk na moo ca defal ñaan sa xol la fa ne mooy defal ñaak Mm-hmm. yaquluuna bi alsinnatihim maa mm-hmm. laysa fii quluubihim mm-hmm. daa yi teel a jóg dana tax doo biddanti dana tax kenn du ndikki bala ñi biddanti ñëpp seen xol dafa tàng teel a jóg farata la teel a yeewu farata la ndax nga ndékki ca ndékki tàng la lekk ca mburu lekk ca beurre ba fromage ba lekk ca brochette ya waaye bu fekk brochette yi dese soble des ngóor soosu lu tuuti loo xamu nu mu tudd. ah. Mm-hmm. Mm-hmm. desi desi de nga dajale ko. Mm. ba pare eh, desi si kànn de nga naan ko. Mm. boo jaar naqari dara ndax mm. sa biir day jàmbaaju. Mm-hmm. kon li jiitu mooy daara. daara jiitu de. Uh-huh. nañ ko teg ci kanam. wallaahi. ku moom jaami. wallaahi yàlla. ku bind jaami. yàlla. kuy dundal jaami. yàlla. yàlla lu tax mu bind ñu. pour ñu jaamu ko. ja yàlla na wax ne bala ngeen maa jaamu def leen ko. na ngeen ma xam. ah ko dégg. Mm, séeréer. Ah, rawatina tukkulóor bu dégg wolof. <laughs> wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudoon. Mm-hmm. yéen nit ak jinne maa bind. Mm-hmm. deewuma leen dara lu dul bu ngeen xëyee. Mm. nekk leen ci li ma leen sant. Mm-hmm. su ngeen gontee nekk leen ci. su guddee nekk leen ci. ngeen moytu li ma leen tere. gaa yi ne bëre ne naka yàlla ne noo teey leen hmm. faarifuuni hmm. qabla an taabuduni mm-hmm. quartier bu bees dañ fa def daara mm-hmm. quartier amul daara nañ fa samp daara mm-hmm. nit ñi jàng nu ñuy defee ndigalu yàlla ak nu ñuy moytoo tere yàlla suñ ko xamee ba pare nag tabax ja jàkka ca wet ga ku génnee ci daara ji dugg ca jàkka ja suñ paree dagg tool ca wet ga mooy ku ne wut loo def soo génnee ci jàkka ja lagg liggéeyi dana tax doo neexal kenn doo yepp yepp fenn kenn du la tëj ci buntu biroom di la fooye góor jom. Mm-hmm. góor jom. Mm-hmm. góor jom. Mm-hmm. mooy tax kenn du la ko mm. koo dégg mu naan diw damaa toroxal. boo defoon na mu def doo ko seeti ba mu lay toroxal. am déet Oustaz. wallaay cee wallaay dëgg la seen ah. am am nañu commencé laajte ay lis eh, ay ay listu daara te amuñu ay daara. ah voilà. luñ koy doyee ñàkk jom rek la. jom bëgg dund gis nga coow li yëpp. li loo lépp si laaj rek la ku ne bëgg a mos. waaye mm-hmm. waaye mos leen yàlla. Sidi Hadj Mal nee na. ku mos xam-xam. mos njëriñu xam-xam. fa xallamaa yërëxabu fii maa inda naas. Maodo ko bind. nee na ku mos xam-xam aaru nii xam-xam neexee. ñu war a miiraas nga toog kenn xamul nu ñuy séddale alal ci diir. Mm-hmm. kenn xamu ko ci sariya. Mm. nga jóg ñëw tracé ko. Mm-hmm. malaaka yi seede mhm. yàlla sëpp mhm. nga tracé ba mu jekk dégg naa ni nga ubbi mhm. def leen miiraas leen yàllaa ngi xool miiraas mi im fi yónni woon jëlee ko fi du ko wor lu xew gannaawam dana ko wan nga miiraas bari ñu ne est-ce que xool sedd ku ne yëkkati dara jox jot ñu bismillah ñu yellu nga jiite ñu biral nga jiite alxuraan ju neex xam nga ne xam-xam a neex wallaay dëgg la siy daaju maali nee li dàq ca àdduna nee na soo mosee xam-xam mm. mos jëfe xam-xam mm. nee na néew mm-hmm. na nga jéem a xalaata bëgg lu nit yor mm-hmm. fa xallamaa mm-hmm. fii maa indana aw doo ko bind est-ce que ñoom faale wu ñoon tubaab bi bay dundee jàkka ja ñu jaamu yàlla dem ca daara ja jàngale ñett mooy mécc mag jàngale jaamu yàlla liggéey dundee mooy jajju baax jàngale. Hmm. jaamu yàlla. Hmm. bay dundee moo moom la Maodo doon def. muy caj juba. Hmm. ñun nag lu nuy def. jàng ba pare. di wëndeelu sàmbay mbayaat. est-ce que. gis kuy wax di tagg nit ci ka muy tagg wóor na ko ne day fen. dinaa nangam. tiim ma ci tànt. fekk danga bëgg a gësam sama loxo ma dugal sama poos dóor la dix mille. ay jeex na de. corona jëlee na ko fi. Eh? déggoo maam nee na léegi nañu bàyyi nabiyen def iran yee ma ne ko man fi bu ma dugal iran yee fa nabiyen leen ko rek maa ko ma ne ko ah nabiyen leen ku ko ci gëm kay ku ko ci yéen ñuy déglu nag bu fi kenn jógee naan commence dégg nañ li nga wax booba dañ doon kaf rek xaw na Sénégal da nga leen di xam na da ngay teel a kar arabtu leen booba dañu toll ci promenade mu ne barab yéen ci bi ma ne ko yéen nabiyen mu ne déet nañ dem rek fi ne éran yi xew yee ma moo fi yee mu ko da nga maa jox dara rek. Mm-hmm. Mm-hmm. booba ay kaf la woon. Eh, eh. yéen ñiy déglu ndax xam naa leen. Mm-hmm. am na ñoo xam ñu ngi déglu. di xaar foo jëm. ndax ay naaf fekk lañu. ci la ñuy dund ci la dox. amuñu jom judduwuñ ci jom. nga dox loolu. nga gis xam-xam ni mu bëree sol kon bu ñuy teral nañu jiital borom xam-xam. soo mosee xam-xam oustaz. Mm. mu xam nga ni ñuy miraas. Mm-hmm. xam ni ñuy jullee. Mm-hmm. xam nga bala ngaa déglu saar. Mm. ngay jiite ba mu yàgg ci jumaa ji mu fees dell. Mm-hmm. nga am benn rakka jumaa. Mm. daal di toog. fi nga toog juum ne da ngay sa xel ñu ne la subhanallah. mooyaa matagul. li nga diine bañ bañ nga tooñ. Mm. bañ nga frustré nit. moo coog moo tax booy sàbbaal. doo wax lu dul arab mooy maa ngi bàkk yàlla. Mm. mais buñ mayoon nit mu sàbbaale ni ko neex. Mm. waaye yow xamoo dara waay. taayoo. Mm-hmm. Mm-hmm. rayante ñëw. Mm-hmm. mais da nga naan subhanallah. maa ngi bàkk yàlla. loo ca nam mooy juum nga. amoon nga benn raaka toog taaya. ñu ne subhanallah. nga ne bërit. foofu lu neex a fi ne. jàng fàtteeg saar ca kaw. Mm. jàkk yëpp di xalaat loo war a def. nga taaya. di taaya mm-hmm. di taaya mm-hmm. ba sa taaya jeex mm-hmm. nga ne assalaamu aleykum di dóor sa jëcc suuf allahu akbar ñëpp sujjoot nga siggi allahu akbar ñëpp siggi allahu akbar ñëpp def nga siggi taaya ne assalaamu aleykum da ngaa dolli ndax da ngaa toog foo war ta bi usaa lii ko dàq dara mel na ni mis bi mel na ni parfum mel na ko. Mm-hmm. jasneer mel na ko. Mm-hmm. dem bitim réew mel na ko. Mm-hmm. daana melu nii. bala ngaa xam ne moo neex. Mm. xam nga foo koy xamee. ministre yi wër la député yi wër la borom alal yi wër la doomu seen yi jàngul yëpp wër la. nga juum juum te gi ñëpp gëlëm. nga ne ko tell mu naay. ñëpp buñ jógee jox la loxo. moo tax si daaj maa ne. xam-xam. nga xam am xam-xam. Mm. ak jëfe xam-xam mhm. boo ko yàlla may dootoo xemmem lu nit yor mhm. moo tax Sëriñ Tuubaa waxoon nag ne xam-xam yépp boo leen mhm. dajalee bi ci gën mooy xam-xamu wéetal yàlla waay waay aaroon soo waree dee ku ko mën a bank kenn ah kenn ah ko man a fanq kenn soo waree ñàkk ku ko mën a fanq kenn yàlla rek ku ko mën ku dul yàlla mënu ca dara dara la ci mënoon mhm. xoolal sunu ponkal yi ñu am ci diine yëpp mhm. commencé ci yonent yi ba fi ñu jëpp ñëpp feebar leen yóbbu mhm. am na ñoo xam ne mënatunoo lekk seen mbàq ko amul mënuñu ko moo tax bu boobaa nag soo tiimee li ni mel aaruna naan cëy yàlla bul ne cëy kam xulooloon bul ne cëy kamu kamu tooñoon déedéet ne cëy yàlla xoolal kii mbàq gaa ngi fi mm-hmm. puut baa ngi fi mm-hmm. gémmiñ gaa ngi fi mm-hmm. waaye ci raakoo la muy sidditam ci la ñuy jaarale naanam li muy naan ci la lekkam ne muy perfusion nga yëg ne yàlla man xoolal bi bi yàlla defere yëpp bàyyi ko mm. ba pare nag joxu leen ndigal ne benn gémmiñ bul fonctionné euh, suuf bul fonctionné awra bul fonctionné bàyyi maa nit ñi ma bëgg a weddi baa muy jiir mbagg ba maag moom xamul ne walam yëkkul la ko kufaan aat mama kooku mm-hmm. docteur bi xool xool pexaamul mu ni mm. il faut ñu dagg boor bi mm-hmm. roof fi raakool mm-hmm. mu di fi cabinet di fi sawee yàlla nañ gaw ñëw inna ma yax salla min ibadil ulama yow de war nga maa yow borom xam-xam boobu fi nga li ma defar yëpp téye ko mënta dox manoo manoo ubbi suufam manoo ubbi awraam manoo defar tuutam xotte nga ci xalaat kon war nga boo ca paree ne ma yàlla yow a nga daldi bàyyi say bàkkaat jaamu innama yaxsha allah min ibadil ulama mhm. borom xam-xam bis bu nu yàlla jommal leen mhm. loolu nga fay jànge moo tax tawxid am solo mhm. gis nga soo amee tawxid boo xuloog maas su la dara dalee doo ko tuumaal maas soo xuloog haaroon su la dara dalee doo ni ustaar da nga naan lii yàlla la ndax moo ñoon na ko avant may gane àdduna loolu mooy wéetal yàlla ah sëñ Babacar nag na. Hmm. ii nee na xur wu naqaree jaar la. Hmm. Mhm. ak tawakkul. Hmm. nee na wiiru ci yàlla. sëñ Babacar nee na ak a baax waaye ak a naqaree dugg. ak naqaree soobu. waaw. Ah. sëñ Babacar nee na ak a baax waaye ak.